gendarme yi dafa wàcc oto bi mu duggoon daal di daw gars yi dàqe nañu ko lu toll si juróomi téeméeri mètre doog ko jàpp Boy Djiné dafa amoon benn moto te max boo xam ne moo doon accompagner Boy Djiné waaye moto boobe nag dafa taxawoon ci benn station di jël essence fa la ñu ko gars yi fekk jàpp ko daal di nag kàmbal ki nga xam ne mooy Boy Djiné moom tim ñu daal di koy teg loxo yéen a gi ne na am na ñeneen ñoo xamante ni ay complice Boy Djiné lañ teg nañu leen loxo journal bi ne na jëlee nañu Boy Djiné ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko tegandoo loxo andi leen ci Ndakaaru section de recherche bu Colobane yore enquête bi yéen gi de l'observateur nee na Boy Djiné fekk nañu ci moom ay valise waaye nag fekk nañu si ñeenti téléphone lu toll si ñaar ci ay millions yéen kaay gi de wax na nag Boy Djiné ana nan la daanoo ak ñi nga xam ne ñooy ay complice am na ku ci tudd am si am na ku ci tudd Cheikh Ndiaye am ku ci tudd du Faye yéen kaay gi de l'observateur ne Boy Djiné Ndakaaru ci gox bii di Kër Mbay Fall fi la jugee demoon ca diwaanu Tamba waaye nag dafa bëggoon a dem Côte d'Ivoire jaaree ko Mali yéen kaay gi de 24 heures bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum découpage administratif bi ni ki démb ministre bi ñu dénk kaaraangi réew mi di Félix Antoine Abdoulaye Diome ak Omar Gueye mi ñu dénk wàllum décentralisation janoon nañu ak taskatu xabaar yi nee nañu lépp loo xamante jëm na ci àq ak yelleefu droit ñi nga xam ne ñooy électeurs yi danañu ko daal di respecté yéen a kaay gi nee na nag jafe-jafe yi nga xamante ñu bari jàpp nañu ne dina am ci découpage administratif bi Omar Gueye ak Antoine Diome ñoom nag waxuñu ci lenn lu leer législative bi te amul lenn loo xam ne làqu na ci jëm ci wàllum politique ndax nag ñu bare bare dañuy tuumaal Macky Sall ne découpage bi wàllum politique moo tax yéen i kaay gii di réew mi quotidien xëy diñu xibaar naan ñu découpage bi nga xam ne def nañu ko Kër Massar gi ñu def département xañ na lu bare bari ñi nga xam ne ñooy waa Pikine yéen i kaay gii da la Soleil bàyyi mbir moomee wax ci tournée économique bi nga xam ne président Macky Sall def na ko fan yi ñu génn waaye nag am na beneen boo xam ne Macky Sall ma ngi koy ndax fukki fan ak ñaar ci weeru juin jàpp fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi nga xam ne moom la ñu dëgmala njiitu réew di président Macky Sall dina dem nag ci noor bi ci bët gànnaaru réew mi yéen kaay gi ne na Macky Sall bu ca demee ci tournée boobu dana sa amal ay conseil présidentiel amal fa ay conseil des ministres yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na waa Matam ak waa Saint-Louis jamono ji ñoo ngi xaar Macky Sall yéen kaay gi di Libération xëy duñu xibaar naan ñu maître Abdoulaye Babo fan yi nga xam ne moom la ñu génn ci tribunal Diourbel da doon giita ngaas ak procureur nga xamante ni nag ñooy e ñoom nag mer nañu ba futu ay kàddu yoo xam ne dafa bëggoon a jaxase askanu murit ak ki nga xam ne mooy procureur Mamadou Seydou Diaw waaye nag Mamadou Seydou Diaw musta yëkkate ay kàddu yu ñàkk ma teg ko ci Serigne Touba yéen kaay gi délibération ñu fekk fa Serigne Moustapha Lakarama wax na ci coow li nga xam ne moo dox diggante maître Abdoulaye Babou ak procureur Mamadou Seydou Diaw moom Serigne bi nee na nag procureur bi amul yenn kàddu yoo xam ne yëkkati na ko kàddu yu jar wax jee nee na procureur bi musta tuuma la musta yàq dara murit yi yéen kaay gi nee na li nga xam ne moom la maître Abdoulaye Babou doon wax daal ay manipulation manipulation ay manipulation yéen a kaay gi di réew mi ko di xëy ci atte bi nga xam ne démb doon nañu ko atte ci tribunalum Ndakaaru dox diggante journaliste bi di ma jambal jaañ ak magistrat bi di Souleymane Teliko yéen a kaay gi ne na mbir mi wex na xàtt ni ki démb ca ma jambal jaañ ndax maat maatee nañ ko maanaam ba ba pare avocat yi di laaj lu toll ci cinq cent millions maître Bamba Cissé nee na ma jambal jaañ ba mu xool ko mu ne ko noy mu ne ko yow mercenaire mercenaire de la plume nga yéen a kaay gi di source ma jambal jaañ nee na nag baat bi nga xamante ni jëfandikoo teggoon na ko ne épinglé épinglé baat boobu nag na mu ko déggee ak ni ko gars yi waxee bokkul yéen a kaay gi ne na ñi nga xamante ni nag mooy attekat yi dañoo laaj ma jëmal jaañ na ko léegi rapport bi nga xam ne yaa koy wax ne union européenne maanaam génn nañu ko ana rapport bi gars yi nee nañu du rapport union africaine waaye nag ab compte rendu la yéen a gi ne na bi fukki fan juróom-ñaar ci weeru juin bi ñu dëgmal la yéen a teg leen fitna teg leen musiba yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na armée française maanaam nag dakkal na participation gi nga xam ne doon na ko def ci lu jëm ci opération yi ñuy amal ci diwaanu Mali yéen kaay gi di Les Échos nee na section de recherche ñoom nag daal di ñuy déglu ki nga xam ne mooy kii Mari Sagna ndax moom activiste bi dafa porté woon plainte jege ñaale maire bu mali Malicounda ak maire bi ci boppam di Maguette seen moo tax kii Mari Sagna déglu nañu ko démb yéen kaay gi nee na Maguette Sène ak lu toll ci ñaar fukk ci ay jege ñaale ma danañu leen déglu ñoo say topp yéen Quotidien nee na mouvement M2D ñoom fukki fan ak benn ci weeru juin danañu wàcc ci mbedd mi yéen i kaay gi dee sat xëy ci Sénégal jambi journal bi nee na Sadio Mané ak Boulaye ak Ismaïla saar ñoom la ñu nar a samp ñu explosé Zambie yéen i kaay gi nee na France Foot def na Edouard Mendy meilleur gardien yéen i kaay gi de sunu làmb ñu xëy fekk fo doomu Gaston Mbengue bii di makkaan daan nay wax ni Modou Lô su jekkee su paree danañu ko jox lu toll ci ñetti avance